Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et Messieurs, vous suivez les programmes de Salam Vision. Voici une synthèse de l'actualité à la présentation signée Cheikh Oussafou. Célébration ce lundi mai de la journée mondiale de la liberté de la presse. Partout en Afrique et dans le monde, les journalistes sont menacés et harcelés dans l'exercice de fonctions. Ici au Sénégal, la situation se dégrade et se détériore au milieu du jour. Certains et consoeurs sont confrontés à des difficultés financières euh, sur le plan de la profession. Euh, un événement triste s'est déroulé hier à Diounissé, au nord de Fatick. C'est dans un petit Il y a eu des affrontements euh, sanglants qui sont déroulés hier. Il y a eu blessés, des arrestations arbitraires par la gendarmerie. Euh, un homme nommé Birahim Sen, Sembla Zizani, il a tiré dans ce pays. C'est un jeune euh, marabout. Euh, selon les populations de cette localité, euh, il est en train de jouer avec le feu au niveau du village. La raison pour laquelle les populations sont descendues dans les rues euh, pour euh, demander à ce marabout de quitter très rapidement les lieux. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SAES Oscroton, a e déposé une table, une table Euh, devant le ministère de l'enseignement supérieur pour protester contre les indemnités et les conditions difficiles auxquelles sont confrontés euh, ces euh, professeurs d'université. La CEDEAO tacle le gouvernement sénégalais dans six mois d'enlever très rapidement ce, problème du parrainage qui beaucoup de tollés et des suspicions à travers le monde. selon les responsables de la CEDEAO, ce parrainage a fait du lors des élections présidentielles qui sont déroulées au Sénégal, c'était en 2019. Hors de chez nous, nous allons nous rendre à Yamena au Tchad. Euh, c'est maintenant officiel. Le gouvernement de transition dirigé par Mohamed Deli a mis sur pied, a mis sur pied hier et 3 secrétaires d'État. Et nous nous également au Niger. 15 militaires euh, sont, ont à, à Taoua, ils sont tombés dans un piège, c'était euh, lors euh, des affrontements avec les djihadistes mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk ko si kàllaama ko ci bàyyi ma te li ñu màggal li naan journée internationale de la presse jëmale ko ci taskatu xibaar yi xam ngeen ni journaliste yi nekk si ay jafe-jafe euh, Sénégal nag nekk na mbir di gën di jéggi dayoo taskatu xibaar yi yenn nekk si ay jafe-jafe moo tax tey ñuy euh, woo nguur gi ñu mën leen gestu jëmale amoon ay jamono yu métti fële ca Diohine mooy fële ca yoonu Fatick benn village bu ñuy wax euh, ki ñuy wax moom mooy Birane Sène nekk benn euh, sëriñ di fa jiite fa ay ndongo daara askan wi dañuy yeewu ñu bëgg ñu gis ñu dëkk euh, ay nit ñu bari bari ay gaañ ay takk ay gendarme mbir mi jamono ji sagarne fii diggante Birane Sène ak askanu Diohine syndicat autonome de l'enseignement supérieur mooy daara yi yi ñoom nag euh, dañuy fase nag euh, jébbal ministère de l'enseignement supérieur di waale nag benn grève bu ay ndàmpaay ay indemnité ay jumtuwaay yoo xam ni euh, daara yi koy faral di jànkuwanteel ñu njëkk fële ca waa CEDEAO xam ngeen mooy bànqaas bi ëmb mbootaayu Afrique. ñoo ñu ngi danxaafu Sénégal ñu mën a teg ñu mu gën a gaawee fekk weer di naan système de parrainage bu xam ne doon na fi ay jafe-jafe élection présidentielle atum 2019 et CEDEAO bi loolu dafay faral di ay jafe-jafe euh, si biir askanu Afrique euh, mbokk yi euh, bitim réew la ñuy doxantu fële ci N'Djamena xam mooy Mahamat Déby sampal na gouvernement bu bees xam ne na ñeent fukki jëwriñ ak ñetti secrétaire d'État yoo xam ne ñoom ñoo war a jiite fële euh, ca Tchad Niger lañ koy tëjee euh, amatu rek ay jafe-jafe diggante woykatu yi euh, far nañ fa fukki juróomi nit fukki ak juróomi ak doomu aadama yoo xam ni ay soldat Niger yeneen xibaar mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen